عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق kañ la ñu tëj jàkk yi yàgg na ca mars mars ba booba lay julliwuñ ci kañ la ñu tëj jumaa yi mars ayit yi fi jaar korite tabaski yëpp tabaarakallaahu dañ ko aj li ñu jublu lan la ci diine bidaa mustaxsan moo salaatu bu gën a dëgg salaatu kon waxtaan nañ ci ba pare ak kaaba gi sax màkk téere yi bind nañ ci rek bind nañ ci waaye sëriñ def ni comme que waxtaanoon ngeen nañu yëg ni rek Tiwaawan du gàmm <laughs> Tiwaawan du gàmm buñ demee ci téere yi bari na bindoon naa ko waaye def na nañ koo gàttal comme que waxtaanoon ngeen ba pare ca Ndakaaru jàpp li ngeen di jàpp mooy Tiwaawan incha allahu du gàmm yàlla ñu yàlla may nag fekke nag ay at ci kanam muy at yi yokkute ak susural ci barke Seydina Muhammad boo delloo ci téere yi di nga ci gis ngànt yu bari yoo xam ne kenn ku ci nekk mën nga caa sukkandiku ba du am te dañu def waxoon sax wax ji na foofu boo delloo ci alquran am na luñ ci wax. waaye boo demee ci médecine yi fi toog fas alu ahla dikri in kuntum la taalamun waaw te feebar la boo xam ne bii bari nañ ñoo xam ne ñu ngi dem di ko yóbbaale te xamuñ fi ñu koy dem kon nag sëriñ bi daal nee na dañu bàyyi incha allahu ba déwén ni gàmm ñu gàmm incha allah wasalaamaaleykum